waa sama waay yow yow yow ñu ngi la fekk fii ñun ñun waa vingt 24 point net tey ñëw fii ci yoon wi euh, daanaka sunu sunu essence bi daanaka ba ñu ne da doon waaj yeex yaa ñu dabaale mais ñu ñëw fekk la fii moom mel ne yaa ngi door waar ci wàllum yére mais ñu jékki-jékki nga ne taxaw leen ba pare ñëw dépanner oto bi mais yow bëggoon nañu xam loolu naka la demee. waaw parce que ñun dañoo jàng mécanique bu yàgg nag presque 87 euh, ba léegi ba 2006 maa ngi mécanique. yàgg na lool parce que vingt 27 ans de carrière laa def parce que bi ma ko commencé ak léegi ak bi ma ko bàyyee yàggul quoi te bi ma koy bàyyi bon dama dem ba mënatuma liggéey jox nit ma doon wut euh, fu ma liggéey mais soo commencé fii dañ lay wax ne la jógal fii déplacé ko parce que fii du place su liggéeyukaay mécanique après ma bàyyi ko fa nag ne comme ko demee ne nii te bon kër ga dañ lay laaj ñeneen di la laaj ma bàyyi ko dem jël sama yére dem di ko jël di jaay su ma jaayee des junni des fois ma am 2000 des fois ma am 3000 ma yóbbu sama kër pour sama njaboot ñu dundee ma nekk ci waar wi mais su ma gisee mécanique embossement wala leneen damay dem dóori waar amul benn problème. parce que man dóor waar rek laa xam ah. mu mel ni tey am nga concurrent muy dóor waar bi ma àndal muy ci wàllu caméra moom dëgg dëgg ko euh, euh, bëggoon nañu xam euh, tamit ñaata at nga def ci mécanique nga ne ñaata at ñaata année. bon su ma juumul daal 27 ans yi moom mat na. 27 ans waaw d'accord parce que su ma daal. 27 ans ba 28 ans def naa ko mécanique moom. macha allah loolu bëggoon nañ xam tur bi ak wa bi. waa Alassane waaw ñu gën ma xam ci maam góor ñi nga bëgg fàllu waaw adresse bi fan la euh, Parcelles Assainies unité 10 unité 10 oui tabarkalla kii numéro rek la mën a sol numéro 10 euh, Parcelles Assainies unité 10 mbokk yi dégg ngeen ko euh, Alassane ñi ngeen ko muy mécanicien boo xamante ne def na 27 ans li nga xam ne moo di wàllum mécanique waaye gis nañ ko tey muy dóor waar ci wàllum li nga xam ni moo di ay jaay mu yére may li ko wax rek mooy lépp rek dóor waar la waaw Oui, ok, merci. Tout neuf. Ok, merci. Allez, bonne journée. waaw loolu rek la ñuy wër ci réew mi jaajëf wàññi naa naan chaine ak ay gaaw a chaine laajal suma gaay yooyu yëpp lañ bàyyi ay chemin pagaille ku nekk ngi bàyyi